ke internet yi wéy leen di abonné euh, moom mii di Cheikh Bara Ndiaye nag euh, ku nekk xam na ne depuis mu daal di jógee ca kaso ba euh, booba ba tey wér-gi-yaramam demeewul noonu ba tey sax mën nañ ci ay xibaar Euh, ma ngay wéy di euh, continuer li nga mooy ak euh, fajoom gannaaw ba mu amee li nga xam ne rek moom mooy liberté provisoire loole nag bokk ci li nga xam ne rek tax na ba tey kenn de gàttu ko. abonné leen ci seen seen YouTube Partout moom leen di jox xibaar yu wér Partout TV.